xew-xew bu mel nii daaw ci waxtu wi defoon nañ ko fii yàlla may ñu ren itam ñu teewee ko kon nag ñu war a sant yàlla bu baax ah bi tey bi nag dafay bés bi nga xam ne bés bu spécial la ndaxte dafa dajeek at bi nga xam ne école bi am na ci ñaar fukki at ñaar fukki at yi nga xam ne lépp liggéey la gëstu xalaat ba egg fi ñu egg tey kon nag ñu ne dañuy sant di sargal sant ak sargal nag yaafuus moomu ko ku ñuy sant ak ku ñuy sargal dafa fekk ne fiñ la yaakaaroon tasoo fa yaakaar fiñ la doon xaar egg nga fa liñ la sant def nga ko ba mat sëkk ba ñëpp rafetlu ko kookee lañu mën a sant kooke lañu mën a gërëm kookee lañu mën a sargal itam ba tax ne képp ku fi toog tey te ñu war la sargal di sant na nga xam ne doo yaafuus yaafuus kenn du ko sant kenn du ko sargal ku ñuy sant kay di ko sargal ab jàmbaar lañuy sant di ko sargal kon nag jàpp leen ne képp ku fi toog tey ñu war laa sant di la sargal jàmbaar ga ñu tàmbale ko ci kan ci yenn élèves yi jàpp leen ne yéen ñëpp tey jàpp leen ne ay jàmbaar ngeen ay jàmbaar ngeen ma a doon ay jàmbaar ngeen te jàpp naa ne ay jàmbaar ngeen di ma sa doon ndaxte fukki at ba fukki at ak juróom di jàng neexul metti na wante nag lépp liñ leen ci soxla lépp lañ ci yaakaaroon def ngeen ko ba mu mbat sargal ngeen sagal ngeen ñu sagal ngeen mbooloo mi sagal ngeen école kon nag ñu ngi leen di sant di leen sargal bu baax a baax a baax gannaaw élèves yi ñi ngi sant di sargal parent d'élève yi tam ndaxte élève lu mu mën parent d'élève moo tax parent d'élève mooy bind mooy jënd kaye mooy fay scolarité mooy ut taxi mooy toppatoo mooy faj mooy dund mooy def lépp kon nag bu ñu eggee tey ba ci situation bii parent d'élève yi am ngeen ci rôle bu rëy kon nag ñu ngi leen di sant di leen sargal bu baax a baax a baax ci seen jàppale yooyu jàppale yi ngeen jàppale xale yi jàppale yi ngeen jàppale élèves yi ak école bi bu ko deful loon xëy na duñu egg fii wante sant ak cargal itam war nañ koo defal jàngalekat yi ndaxte jàngalekat mooy jàngale bépp xam-xam bi xale bi am jàngalekat baa ko koy jox kon nag bu ñu demee bi xale élèves yi egg ba fii kon nañ ci sant sargal ci jàngalekat yi bu baax a baax a baax ah ñi ngi sant itam di sargal direction bi avec à sa tête madame la directrice ndaxte su fekkee ne jàngalekat yi jàngale nañu parents d'élèves yi taxaw nañu élèves yi ñu ngi góor góorgóorlu su fekkee direction bi itam doxut xëy na du ñu egg fu ñu war a egg tey kon nag direction bi avec à sa tête madame la directrice ñu ngi lay sant et nous profiter de sant ak sargal le proviseur Keita mi nga xamné mo nekkon lycée Mbacké yalla def né ren lay dem retraite ñepp rañé nañu déggé bu rafet bi mu def ci département bi kon na monsieur le proviseur ñi ngi lay sant di la sargal di la féliciter bu baax di ñaan yalla yalla na sa retraite bi gëna neex sa année d'activité yi et di sant itam

peccum liir bu neexee ndey jee jàpp ca bàgg bi lii lépp bi ñu ko amee école Badiane Mbaye am ko gannaaw yàlla ah soxna si bu eggee ba fii sëriñam moo ko jàppale kon na bàyyi sëriñ bàyyi sëriñ seek bàyyi sëriñ seek bàyyi sëriñ Seck jërëjëf bàyyi sëriñ Seck jërëjëf tàmbali bi yow la digg bi yow la tey yow la te yaay doon suba tamit yow day doon yàlla na nga yàgg fii suñu wet yàlla na nga yàgg fii suñu wet yàlla na nga yàgg fii suñu wet yàlla na nga yàgg dañu tettee dañu gunge dañu dimbale dañu xelal lépp a ngi fii def nga lëpp lii lépp yow a gannaaw yàlla yow kon na bàyyi sëriñ amuñu sa bay ñun ñëpp gis nañu sa taxawaay yàlla na ko yàgg di ko def fa mu mujjee nag mooy école bi dama koy wax à waar bi ñu fi yeggee itam ku ci nekk def nga ci sa wante ñëpp xam nañ ne école bi gannaaw bi ko sëñ Saliou ubbee gannaaw bu ko sëñ Saliou ko bi sëñ Saliou ñaanee ci njëlbën gi lépp lu ci def yàlla ak yonte ba sëñ Mountakha Mbacké sëñ Mountakha Mbacké gannaaw bu ñu fëddalee suñu kóllëre ci moom gannaaw fu ñu fëddalee suñu jébbal ci moom xam ne moom lañ yaakaar tey moom lañ yaakaar ëllëg ñi ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax ndaxte xelam a ngi fi xolam a ngi fi ñaanam a ngi fii lépp ci école bi suñu site bale bi ñu koy intégré moo taxaw ñaan ci te xam ngeen ne sëñ mu taxaw képp ku mu jàppar ci xelam ci xolam ak ci ñaanam doo yaa Facebook kon nag ñu ngi sant sëñ mu ak bu baax di ko fëtali war suñu wër suñu si suñu jëbbal ci moom bu baax kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waxtu bi kii na foofu la ñuy wax loolu foofu la ñu bëggoon a wax loolu la ñu bëggoon a wax yem ci loolu ñu ngi sant ñëpp di gërëm jëm wasalaam. jërëjëf jërëjëf euh, jërëjëf professeur Sangaré jërëjëf ci kàddu yu rafet yi kàddu yi jaajëfal yi ñu ngi sant bu baax a baax a baax.